asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi ñëwaat toog ci jataay boo xam ne ci ndigalul Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa Serigne Salihu yàlla na ko sun borom may fanu gudd lool waa ànd ak yaram mu jëm ci liggéey bi nga xam ne baaxoo na di ko fàttalee at mu jot buñ toll ci waxtu wi te liggéey boobu moo di liggéeyu tool yi lagan liggéeyu tool yi lagan mu jëm ci ngóobum saaña mi nga xam ne at mu jot baaxoo nañ di ko fa amal liggéey boobu nag ku ne xam ne ne sëriñ bi dafa am jëwriñam joo xam ne sëriñ Saliou moo ko tànnoon def ko muy jëwriñu daara ja di Alhaji Samiyel saar sëriñ bi nee na mi ngi koy fàttali liggéey bi di ko ci joxaat cër bi nga xam ne moom la ko sëriñ Saliou joxoon. waaye nag di ko fàttaliwaat bokk yi nga xam ne ñoo dëkke saalum ak ñi ci baaxoo dem ci dëkk ci biir réew mi incha allahu rabbi dana leen tuddaat ci yeneen jotaay. su ngeen gisee jotaay bi nag xam ne sunu kàddu fi mu jëm mooy soññee liggéeyu daaree Lagan mi ngóobum saañu sëriñ bi nag ñu ngi jiital ak cant ci liggéey yi jiitu woon tey soññee ci liggéey bi nu jëm su woote bi nag ñu ngi koy tàmbalee ci Cheikh Abdou Jenn mi nga xam ni mooy xalifa Cheikh Issa sëriñ bu Jenn mu sëriñ Baara sëriñ Sidi Naar Jenn muy xalifa sëriñ Naar ak njabootu Cheikh Issa gépp di jiital itam ci woote bi tund Njenne Lagan wépp te muy Njenne Lagan Xay Mbayaar Daaray Siidi Daaru Rahmaan Daaru Salaam Daarul Mannaan Mesere Cele tewru ngaari xaybarka daaru salaam niis baxdaat lansaar tuuba njenne ak curangeen bu dee fii ci tam ñi ngi soññi waa Touba lansaar ci njiital Serigne Cheikh Diop ak waa Ndande Fall ci njiital Serigne Dame Faye daan àndal ak waa Njabel ci njiital Serigne Cheikh Dieye ak Serigne Cheikh Ndak di soññ bu baax tam jëwriñ ji nga xam ne moom la sëriñ bi tànn ci liggéey bi ci taxawaay yi muy Samuel Sarr di ko sant itam ci taxawaay yi ko jiitu woon di sant itam sëriñ Babacar Touré mi nga xam ni moom itam moom ni jàppandal dem gi ak Cheikh Abdoulaye jaay mi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllug euh, transporteur ñu ngi leen ci sant bu baax kon nag ñi ngi soññi mboolem taalibe bi yëpp te leen ci xaar dañ leen niñ leen ci daan xaare Lagan nag ni ko sëriñ Serigne su waxee mi ngi ci wetu njenne euh, sëriñ bi def na fa jàppandal goo xam ne ñëw gi dana yomb ci oto yu mag yi ndax ku ñëw mën ngaa jaare foofu bu tëlib mbul bi it ba tey diggante boobu oto yi mën nañ fee jaar kon sëriñ baa ngi ko yëgal ñëpp bokk yi ak bokki dëkkandoo yi rawatina li gën a jege lagan di ñaan sëriñ bi indi leen ci jàmm te defal leen tawféex di ñaanit it sunu borom mu gën ñoo sàmmal yoon yi bañ agsi ci jàmm waaye loolu itam mi ngi ciy fàttali borom oto yi bu baax a baax di ñaan sëñ Tuubaa nag mu defal ñu kaaraange ak tawféex ba ñëpp ñëw ci jàmm ñëpp agsi ci jàmm. liggéeyal sëriñ bi te sëriñ bi nangu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. liggéey bi nag incha allahu rabbi mi ngi war a doon le 2 décembre départ bi nag sëriñ Abdou Touré mi yor ci wàllu oto yi nee na képp ku soxla oto bu war a jëm lagan na nga woote ci balaa le 2 décembre incha allahu rabbi.